indil nañ leen ko gannaaw ba ngeen ni ko laajee yéen célibataires yi ak mariés yi nga xamante sax dañ naan seen soxna daf leen a yàpp ñu ngi leen di nuyu mbokki internet Allô Sénégal di leen wax ngeen ja ngeen dal jàmm te ak suñu invité bi nga xamante ne mooy sëñ Basiru sëñ Basiru ñu ngi lay nuyu maa leen di fay a'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim maa ngi nuyu mbokki jullit di si jële sëñ Muntaxa ak sëñ Abdou Karim sama xarit ak mboolem jullit macha allah mbokk internet Allô Sénégal ñoo ñu ko laajoon ñoo laajoon sa sa teewaay sa jëmm ji ci kanamu écran yi parce que gis nañ sa sortie bi nga xamante ni mujj nga ko def gis nañ njëriñ yi nga xamante ni indi nga ko leeral nga ko muy wàllum sëy wàllum ngóor ñuy wax rek ñi nga xamante ni euh, ay célibataire lañ mën nañoo xaar ba ba beneen yoon waaye marié yi nag ñoo la tax a jóg mën naa ni ci wàllum kàttan lan nga ñu mën a indil ci awra bi nga xamante ni ndax ci ci sa spécialisation la ñuy wax ci awra bu gàtt lan ngeen ci indi. waaw waaw waaw keroog waxoon naa si awra boo xam ni maanaam euh, nit ñi fooy seen bopp. Mhm. xam nga keroog waxoon naa si. waaw mais dama yemoon si rek si kii seetaan ay film. waaw mais ma si ki rab jàpp xam nga rab da def rab. Mhm. maanaam rab jàpp li ñuy wooye xam nga xam nga góor. Mhm. coro lay am. mooy gelo rab si olof. waaw léegi kooku keroog ma si woon dama ñëwoon si kuy seetaan rek. mais am na boo xam ne borom du ko tey. Mm-hmm. mooy ki xam ne maanaam day seetaan astafurla mooy ki nga ne rab da koo jàpp mm-hmm. mu am coro sa saa gel bi soxlaa ñëw mm-hmm. sëyeeg moom delluwaat foo leer la nan lay sëyeeg moom waaw maanaam rab yow bu nekkee sa gel day ñëw dugg sa xel foloo sa awra maanaam ngay téye di si di si foloote moom moom moom moom moom da si am bànneex nga si am bànneex ah. waaw moom nu mu ci amee bànneex ah doo ko gis rab léegi ñu jinne mi lay gis mais gisoo ko waaw loolu moo ko waral maanaam yow sëy bi ngay sëy noonu ba pare ba maan bu kii moom am na si bànneex ba dem yoonam balaa ngay xam ni rab la dëgg-dëgg jéem koo bàyyi nga xool loo ko mën a bàyyi ak loo jooy jooy am ñoo xam ne dañuy jooy bu ñu paree jooy mm-hmm. am xam ne dañuy wérdu wérdu bu ne mm-hmm. ak ñu ay kilifa yu mag yoo xam ne ay kilifa lañ da leen dal si ñëpp lay dal ku ne la mën a dal ku nekk ak loo baax baax moom mën na laa dal mm-hmm. eh, dongab daara ku ne mën naa dal ku ne ku ne la mën a daal ak loo baax baax nag. Mhm. rab mën na laa dugg def loola loo xam ne baaxut. waaye mhm. sëñ bi ko may doole. Mhm. xam nga yàlla mooy may doole. waaw yàllaa ko may doole. ndax yàlla may doole pour mu ñëw ñun jafe dund. mais bu yàlla bàyyi woon suñ ñëpp baax. kon koy def bàkkaar kenn. waaye <laughs> sëñ bi kooku ban solution nga am ci moom. waaw maanaam kooku solution ma am si moom. mooy comme faj ma la waxoon rek maanaam. kook buy fooyee awraam ni bu ko rab mhm. defee mhm. awra bi dina dem di wàññeeku ba tuuti ba mel ni bu xale wala awra bi dëng mhm. wala awra bi maanaam dina jóg mais doomati doole pour mën a sëy loolu mooy conséquence yi daal waaw mooy conséquence maanaam awra bi di gis ni yow sa awra nii yaakaar nga ne dina mën a sëy mais maanaam du maanaam dëgër ni mu war a dëgër day yëmbax voilà day lambax sidit bi sidit mooy am problème sidit bi am problème léegi nag bu sidit bi amee di nga yaakaar yow mën nga am soxna mais bis bu amee soxna doo si man dara ndax ndax du mën a pénétrer ndax maanaam dëgër gi dëgër mhm. du ko def pour mën a sëy boobaa da ngay door a xam ne yow lii wàññi na la conséquence door a mais fekk célibataire yi def yëpp ñoom instant dañuy yaakaar ñu bari ay góor lañ mais duñuy te ñoom ñu ngi yëg seen bopp ñu ngi def lépp mais dañu mën a pénétrer non day mais maanaam dëgër gi mooy mooy problème xam nga dëgër mooy tax nga mën a sëy waaw dina jóg mhm. mais maanaam man ñiy jàmbat si man ñëpp loolu la jàmbat dañ naan seen awra bi day jóg mais awra bi amatul sant nañ ni amul doole. te balaa balaa ni di di di am ci sëy foog ban euh, foog awra bi dëgër mel ni bant bi day dëgër këcc bu mel ni bant. Hmm. kërëj nga xam ne fu mu pénétré nga xam ne kii hmm. góor la. waa sëñ bi damay gis ñun damay dégg ñu naan euh, suñu mbokk jigéen ñi nañ ma baal dañoo dañoo taamu awra boo xam ne dafa rëy est-ce que góor mën na mën na am awra wu rëy te bañ a satisfaire jabaram wala mën naa am awra ndaw di satisfaire soxnaam. si am na xam nga jigéen ngay seeg point la point boo koy laal la. am na jigéen ñoo xam ne ñoom ñoom si kaw moo leen arrangé am ñoo xam ne si suuf. waaw loolu noo koy xamee. waaw loolu si jigéen ñi la. Uh-huh. maanaam maanaam yow góor gi. xam nga uh-huh. jigéen bu nekk am na point faible. Uh-huh. yow boo yoree soxna yow war nga mën a xam point faible am. waaw. waaw ku nekk ku nekk sa maanaam awra bu rëy. am na ñoo xam seen awra rëy na mais mën ngaa yor awra awra bu ndaw man leen ndax maanaam day rëy mais du am njariñ maanaam day rey mais du dëgër. du am njëriñ du dëgër wala du yàgg. non du dëgër du yàgg ndax awro bu rëy pour nga am ko mën a sëy il faut nga wér dëgg dëgg dëgg nekk góor gu wér gu amul benn feebar muy jabet muy tension muy cité muy hémorroïde. Mm-hmm. mais benn boo si am rek. awra bu rëyee moom day am ay compliqué maanaam maanaam dina rëy rek mais dara du fa nekk. maanaam pëpp lay doon pëpp. <laughs> maanaam ñu ñu ndaw lañ ñoo ëpp chance. waaw am na yu ndaw yoo xam ne maanaam liñ man ku mag uh-huh. mënu ko. déet waay waxuma nag bu gàtt ba toll nii. Ah. mais boo xam ne boo ngëbee nii mu des tuuti. Mm-hmm. boobu doy na sax. mais yow boo xamee ni ngay sëyee rek ah. dèjà moom doy na. waaw boo xamee ni ngay sëyee. Ah. xam nga jigéen moom point la. Uh-huh. waaw am ñu ni ma la wax rek am jigéen ñoo xam ne ñoom dañu bëgg ngay sëy ba fond ba am ñoo xam ne si kaw boo demee si. waaye sëñ bi da wax léegi lu am solo mooy góor dafa war a xam li nga xam ne mooy point faible soxnaam góor ñi lan nga leen di conseillé bu ñu bëggee xam bu ñu mënee jot dëgg-dëgg seen seen bànneex soxna. waaw bala ngaa mën a bala nga mën a am bànneex sa soxna wala sa soxna njëkk laa egg xam nga soxna yi dañuy egg comme ni góor di egg. Mhm. maanaam dama ko rafetal quoi. waaw voilà mais léegi nag pour mu mën a dem am na soxna yoo xam ne bala ñoo mën a yëg bànneex dëgg dëgg dëgg. Mhm. il faut ñu egg ba pare. kon daal ku góor gi foog mu yegg jéem a yeggal soxnaam. ba mu doog a ba soxna ba pare nag. mu door a sëy loo def rek day am bànneex. maanaam préliminaire yi foog dafa am solo. maanaam maanaam sëy sëy du ñëw rek sëy du ñëw rek daal di sëy sëy du ñëw rek daal war a ñëw fo ba pare ba soxna si ba soxna si am tout plaisir ba pare. Mhm. nga fa lu yàgg sax même bu dee 10 minutes sax wala 15 minutes jar na ko ba soxna si egg ba pare nga door a sëy nga xam loo def rek mu yëg bànneex. kon loolu foog nga tamit am soxna am am am awra bu dëgër. si loolu tamit awra dafa war a dëgër boo fooyee fo bi ndax fo bi ni muy yàgg noonu. Mhm. sa awra su baaxut fa lay daanoo. góor ñu bari nee na ñoom bala ñoo sëy ndax xam nga dañuy jéem a def li ma wax nii ñu bala ñoo sëy rek seen awra daanu na dèjà xam loolu amatul njariñ amatul njariñ mais loolu pour nga man ko moom il faut sa awra dëgër di yàgg awra bu mën a taxaw 10 minutes ba 15 minutes ba 20 xam ñoo xam ne bu doon foofu fii ba 30 minutes seen awra day taxaw waaye seen bi am na soxna am na jigéen ñoo xamante ni ñoom dañ ne bu ñuy sëy ak seen borom kër duñ ci yëg bànneex te li ko waral rek mooy seen seen awra moom du du du faral di tooy dafay sax mën na ni dañ day metti waaw feebar la ndoxum si da koy def ndoxum si da koy def si jigéen. mais yow est que loolu bu ñëwee ci mën na ci am. si am na si am na si boo xam jooni jooni la comme ni mu amee man comme ni mu amee garabu si góor ni nga naan léegi mën na sëy léegi. am naa boo xam ne jooni jooni la si jigéen da koy def léegi yëg léegi maanaam bu ko defee 19 heures guddi mm-hmm. day neex ba du xam fu mu nekk danaan man lii hmm, yaakaar naa ne amul si àdduna. mais kook foofu mu koy jël chaque jour. sa garab la non am nañ dama la wax jiw na yoon mais am na traitement. Ah, mais comme yeneen garab yi amee traitement la amee traitement mais boo yàkkamtee xam nga ma du tey tey mais boo yàkkamtee nag gëjee xam nga gëjee sëy mu neex jël ko tey. Ah, mooy ñi nga xamante ni seen seen seen awra day wow. waaw waaw waaw waaw seen awra day wow waaw am boo xam day maanaam da neex am boo xam ne day metti ah. ñaari. ñaari wàll gi la dafa am boo xam ne day metti am boo xam ne moom darul neex kese. mais ñaari est-ce que ñoo bokk traitement. benn bi la benn feer bi la presque rek ñoo bokk traitement maanaam ñun dañuy fexe ba wut lu ko neexal. Ah. mais loolu tamit sëñ bi est-ce amul ay conséquences ak ay ay effets secondaires. garab yi waaw no non am na yu ko am mais man moom yi ma yor moom amu ko moom ndax garab wolof la. Hmm. sa am am na boo xam kenn du ko si diw dañ koy naan sa jooni jooni la. waaw borom lu ñu si mën nga wax. Hmm. mais da koy naan. sa li gën a bari ceeb lañ ko defee ceeb ceeb bi ngay gis nii ceeb. Ah. waaw ceeb. kon ceeb bëri na sungufu ceeb ya <laughs> sungufu ceeb la xam nga sungufu ceeb. Uh-huh. bu ñu la ko joxee nii boo yoree da nga naan lii ceeb la mais maanaam boo si bëggee jooni jooni da nga siy tibb guddi gu mag. 19 uh-huh. heures nga baxal ndox boole ko moom nga xool nga naan. ba guddi nga xool da ngay sëy day neex boo si bëggee traitement nag moom ku dugg ndaw ngay jël lenn fan nopp lu ñaari fan da koy faj mm-hmm. sa du diw dara waaw doo si diw dara ndax xam nga diw bi dañ naan day am ay conséquences mais doo si diw dara kon mi ngi noonu yéen jigéen a xam yéen jigéen ñi nga xamante ne bu ngeen di sëy seen fa seen aro day faral di wow wala wala day faral di métti wala sax du ngeen yëg bànneex bu ngeen gisante ki nga xamante mooy sëñ Basiru bu leen joxee ci garab yi nga xamante ne tawfiix laa ko tuddee di ngeen ci am di ngeen ci am résultat yu baax waaye sëñ bi dafa am ay ni ci gannaaw suñuy recherche parce que ñun duñ amaguñ soxna waaye gannaaw suñuy recherche dafa am ay góor yoo xam ne bu ñuy yegg ci kaw seen soxna maanaam bu ñuy daanu dañuy faral di dañuy faral di yuuxu wala ñuy faral di def leen loolu lan moo koy waral ak est-ce am nga ci solution. waa mais loolu wut am solution mooy yoon. ah <laughs> mooy yoon kay. lan mooy yoon bànneex. Ah. maanaam bu uh, man ni buy génn. waaw foofu bànneex la dañ fi am bànneex boo xam ne day jóge si côté tànk yi ñëw si côté yóor maanaam ñi ko mën a résister bariwul foo ñu def benn benn mouvement bu lay wane ne lii moom neex na sa lu war la kenn mënu ko arrêté loolu kay loolu bu arrêté kon sëy kon arrêté di <laughs> bànneex boobu bu arrêté kon ana sëy mais sëñ bi foofu dañoo dégg ni. Hmm. kër yu bëri ca lañ ko maye oto yu bëri ca lañ ko fa lañ ko maye mais loolu tamit mais loolu tamit sëñ bi loolu. daal waaw foofu la <laughs> xam nga ku nekk la jigéen ñi moom foofu la leen may ñoom seen point fort pour mën faa wax seen i <laughs> même boo sax góor gee ko yow moo la koy dig. Eh, am na ndax dafa am jigéen ñoo xam foofu noonu dañ la fay def loo xam ne maa day taal. déet waay sëñ <laughs> loo xam ne da nga ba tàggoo ak boo ñaan kër gi sax mu may la ko xanaa kay day pare rek <laughs> nungu këram. <laughs> loolu mais loolu yow ban solution yi ngir ñu mën a maîtriser. non non amul solution sëñ bi. ah loolu mooy Seydi. mais góor ñi ngir. déet foo ñu mën a yi mais mais loolu moom si góor gi lay nekk. Ah. en tant que moom mën na ko ah. def ba pare téye tuuti xelam. Mm. mais nag du ñëpp. am ñoo xam ne moom sëñ boo leen laajoon maanaam sa bopp ñu may la ko. est <laughs> waaw léegi li may li may tàggoo mooy. Euh. frotté bi frotté bi xam na wax naa fi léegi wax naa fi léegi waaw waaw frotté bi dafa am solo. Mm. bëgguma koo bàyyi ndax maanaam ñi nga xam ni rab da leen jàpp. Mm-hmm. ñuy masturbé wu. Mm-hmm. am soxna. Mm-hmm. bàyyi soxna si kawlal bi dugg si biir douche bi masturbé wu ba yi seen bopp ñëwaat tëdd. Ah. waa am na am na dañ ma koy wax. ñëw di xool soxna si noonu. waaw ndax maanaam bu ñu soxna si duñ mën dara. loolu feebar la. waa feebar mooy rab bi wala mm. seetaan seetaan mm. Ah, prono bi. léegi nag ñoom dañuy dugg si biir foo ba doyal. Mm-hmm. ba yëg seen bopp ñëwaat si soxna si tëdd soxna si moom du am dara. rab bi mooy am dara. Mm-hmm. léegi nag ñooñu laay digal seen awra bu gàttee ñuy jël frotte bii di ko si diw. Mm-hmm. boo koy diw di ko xëcc di ko xëcc di ko xëcc bu yàggee sa awra day ñëwaat ba normal bu dëngee tamit day xë day normal. bu xëccee da koy guddal daal da koy guddal. di ko rëyal ah feebaree si awra bu feebar. <laughs> mais est-ce que dina ko dëgëral. non maanaam moom dëgër gi dëgg-dëgg moom dafa am lu muy àndal. Ah. dina ko dëgëral nag ndax xam nga awra yi yemuñ am na ñoo xam seen awra dafa maanaam nooy bu lese am. Mm-hmm. boobu moom mën na koo dëgëral mais bu dee ko xam da am faiblesse sexuelle bu garaaw. Mm-hmm. non du ko mën a dëgëral li muy mën mooy bu feebaree mu yokkal ko. Mm-hmm. am na ñoo xam ne mën na dëggal seen awra mais du ñëpp. pour may leeralaat. ñi may woo naan ma danga may yokkal sama awra non non. du judduwaale de <laughs> judduwaale bii mënu si dara. Uh-huh. waaw bii daal maanaam awra bu feebar la man dara. Mm-hmm. ku xam sa awra dafa feebar. Mm-hmm. wala tamit nga judduwaale bëgg sëy bëgg a sëy nii si sensé am na si benn solution muy def boo xam ne am na lu ñu siy diw boo ko si diwee sa awra dina yokkuwaat tuuti mais ñu la mut yor loo xam ni foo jëm ànd ak moom di amut <laughs> man aw ma ko bokk. waaw waaw man <laughs> man moom man moom li ma am mooy loolu. Mm-hmm. léegi may ñaan daal ñi nga xam ni ñi ngi teg ñi ngi teg ñi ngi teg ñi ngi teg coono seen soxna yi. nga xam ne seen soxna yaa ngi tëdd. Mm-hmm. mu mënuluñ seen bopp dara. Mm-hmm. ba pare bañ a faju. xam nga jigéen ñi dañ ma koy jàmbat. Mm-hmm. ma leen di ñaan yéen góor ñoo ñu ngeen dem faju ji ndax faju bi am na. waaw ndax bàkkaar tëdd soxna mënoo si moom dara. dëgg la mënu la koo wax su bu la nee fajul. Mm. nga ma am na soxna yoo xam dañuy ñëwal seen bopp ñëw jënd. Mm. fexe ba nëbb ko def ko si jinjeer jox seen njëkk mu naan. waaw ndax ndax ñi ngi dund coono sa ma gërëm sëñ bi maa ngi lay ñaanal maa ngi lay ñaanal. Mhm. ndax ñoom dañuy toog ay weer duñu mën a sëy. ndeysaan foofu la ñuy tàggoo. Mhm. di nuyu ñëpp. Mhm. di nuyu waa sëñ Abdou Karim sama xarit yàlla na ko fi yàlla yàggal. amiin ak mboolem jullit. mi ngi noor moo ko internet Allô Sénégal tey nag eh, dañoo ñëwoon seet si sëñ Basiru mu woon ñu garab bi nga xamante ni tawféex la képp ku ko mos rek gis njariñ li képp ku ko mos tamit <laughs> mën naa ni nga digal ko sa moroom mu mos ko mi ngi noonu ñu ngi leen di jox ëllëg dig daje ëllëg ci beneen émission Mara jërë ngeen jëf